gaawula baayam xëy mbàkke baari gaawula baayam xëy mbàkke baari gaawula gonte daaru jëm gànnaar roy la la baayam digle woon ci réew mi budul ko nag moom duma wéy li mat me pendal mu tubay la jar naaraamal métal ga ma gën kaa la yañ araamal diglul ma wax la keroog ba Seexu Bamba gontee fa Ndar war pakke ngir yonen ba minex li soo daanix minex li soo daanix ilal ngir ba gërëm mburu ya fil jinaani ngoonuk talaata Seex Bamba dugg na gaal gu ñu naan ni fanaane dagana talaata njaay fanweeri fan ci wa dus yan ko naawaan fase nga tàngoor wa moox la gaay sant woon jëm gànnaar ànd ak sëriñ wa te ñeppi jàmbaar njëkkil sëriñ afe rëkkam moo jiitu sëriñ mamar pendaay loxoom di woote Seex Masamba Xari Joob ak Seex Xari Joob ak njuugu njaay boor xëriñang day toggu caab keroog la Seex ma siise ndongo di ko taxaw fi kanamug sëriñ Tuuba neb dongo ne ko sëriñ bi dama bëggoon nga def ma ne sa takk ndeer bii foo jëmbal ay sax ñu ànd may lal sa der bi munu ko dellul ma siise dellul dellul te nga ma daar man aan dalu tënga ning ma daaru ma naan dalu tënga ning ma daar ma naan delul tënga ning ma daaru ma naan delul tënga ning ma daaru ma naan te xam ne man Serigne Touba léegi ma ñëw bisi rahman la tefaloo say an bi xayri isnin fal isnu sartun bi xa booli sax ni masi sa nango xanaa xamoo man Serigne Touba kuy topp samay ndigal di bàyyi li may tere loo sori sori yaa ngi fi man doo too sori ko xam ne doo topp ndigal doo bàyyi tere loo ma jegeñ jegeñ jegeñ ka yaay ka sori ni ci sa bopp ak ni ci man ak ni fi man bokkuñu ay payin yër mu fi si man ku na ci boppam ñu bàyyi laak sa bopp dun yaawa oxraa nga farek say yëpp benn nga def lu baax ba dem jinaani wala nga def lu ban ba dem niiraani aasana laawaw mina niiraani bi jaayi xayril xalqi fil haddinaan masi sa nongo ku ne ci man ma ne ci moom tayar ko adduna ak laaxira far defar ko sàmm ko ramm ko ba xëy jëfal ko jëbbal ko njool makka mu far do kooko ku ne fi mbar ngir ko meeg saaxir si ma jox la sama baatin del si yàllaa ne man kaana yuridu lam wax ci alquran lay def masiisi na te sax ci mooma at la seex masiisa ndongo demba xabaan bay fa booleeg yalwaan amul fa mbay ma lu du benn dërëm mu xam ne yàllaa ko dogal ci at ma mu fub dërëm bu yóbbu gànnaar jox ko Sëriñ Tuuba mu dolli ko waar lay loola mooy ba mu nuyoog Cheikh Ibra Fall Ahmadou Fall Seer Njaay lay loola mooy ba mu nuyoog Cheikh Ibra Fall Ahmadou Fall Seer Njaay biran jibbe nga cangaay góor dëgg bàyyi laa la Fall mami Cheikh Modou Fallu Fall Cheikh Ibra Fall yónnee fa junni bis ba Sëriñ Asan Caam moo ko yóbbu gànnaar ci ndigalul Cheikh Ibrahima Fall ma jàmbaar Cheikh Bamba naa muridi muridi kaay leen saare ndax junni bi dërëm bilay lay saare borom dërëm bi yónne woon junni ci mën Sëriñ Tuubaa lu ma waayee ne ma fëlke junni neel masalu la siino yun fi xoona yàlla ko wax muy fay defal conoona keroog la Seex Bamba yónnee waalu Seex Ibra Faal mu dikkaan ak mbooloo Seex Moodu Jey kollu limal njaay roqi Ahmadu Loowa Masamba Njaay mu waqi mag sunu maam Cerno Ibra Faati mag maam Cerno sunu Faati mag sunu maam Cerno Ibra Faati mok sunu maam Cerno sunu maam Cerno Ibra Faati mok sunu maam sunu maam Cerno Ibra Faati mok sunu maam sunu maam Cerno Ibra Faati mok sunu maam Cerno sunu maam Cerno Ibra Faati la Bamba wowandoo yar Ibrahima bu leen toppandoo danaa la wax la ni sëriñ ba sant bañ demee gànnaar ku nekki sant na ngeen ma dégluwaat ci ubbi xoli jëme ci Seex Bàmba xelam ci xel yi ma dellu wax leen xibaari gànnaar ci gaddi Seex Sidiya Sidiyal Muxtaar ak la fa xew ci adee fii soo daani ñeenti at la Seex Bàmba bi daani ak li xew ci mbuuri anu noog mbaaxaan ci darajey xarit wara xarit wara addanaan بدلا وسملا حدو قاسم ربي بجاح المصطفى ابن الحاسم سيخ بامبا سيخ بامبا سيخ بامبا سيخ بامبا سيخ بامبا سيخ بامبا سيخ بامبا يلا tasaareel na ko Serigne Touba suma Serigne yàlla tasaareel na ko Baye Serigne Saliou Mbacké yàlla tasaareel fa daaru bëgg reen di Seex ñaa foole nañu leen yéen wóoru jébbalu ñaa alku bu rewek leen du noppalu laanat lil xulubu wal abdaanu saalamani bi daanu wa sudaanu bamba ko wax booba ci réewi gànnaar bala ma ci ngay na góor su ba daan fépp lay jaar looloo taxoon looloo taxoon wa yadaa tëgg rabbana te moom du jàpp naan bana ruu yëpp man Seex Bamba jàpp naa leen fii zaahirin wa baatinin moom naa leen am na ci ruu yoo xam ne dinaa leen dàkku am na ci ruu yoo xam ne dinaa leen sëlbu am na ci ruu yoo xam ne dinaa leen yëlbu am na ci ruu xam ne dinaa leen yóbbu am na ci ruu yoo xam ne dinaa leen folli wekki leen ba seeni sët sax gàlli am na ci ru yoo xam ne dinaa leen yóbbu ba fa ma jëm ma boole nekk rabbu am na ci ru yoo xam ne dinaa leen folli wekki leen ba seeni set sax galli ca yaaya fan lañ folli noonu bu mag ba wekki garatam ya mu ma léppal ba mu dal def ba doola di yolwaan dem car doom ja ñu indi xaaraan Sëriñ Saaliwu Mbàkke sëriñ saaliwu mbàkke sëriñ saaliwu sëriñ saaliwu mbàkke mënatuma jekki te nekku may jooy mënatuma jekki te nekku may jooy sama sëriñ ba sëriñ saaliwu mbàkke tey adduna yaa ko ma njuuy sëriñ saaliwu mbàkke wàjju ko xamoon mu xam la koo mën a tee xamit du tax mu doy la sëriñ saaliwu mbàkke ku ko ñomoon mu ñam la koo mën a tee ñamit du tax mu saf la sëriñ Saaliw Mbàkke xam na nu yaanu daa tawal daanu bayal daanu ñoral daanu roñal daanu dëkkal fesal nga sàqi xarnu bi sa dim gi bal ay sax sa dim gi sa dim gi sa dim gi tax na tax na ñëpp sëtim gi tax na ñëpp jooy sëriñ Saaliw Mbàkke sëtim gi tax na ñëpp jooy nawi di sax dootunu tooy léeg-léeg mu war ba tooli gooy sëriñ bi geesul xarnu bi sëriñ Saaliw Mbàkke sëtim gi tax na ñëpp jooy sëriñ Saaliw sëtim gi tax na ñëpp jooy nawi di sax dootunu tooy léeg-léeg mu war ba tooli gooy sëriñ bi geesul xarnu bi sëriñ Saaliwu Mbàkke xam na nu yaanu daa tawal daanu bayal daanu ñoral daanu roñol daanu feesal nga sàqi xarnu bi sëriñ wu Mbàkke xeem nga day jooy sëriñ wu Mbàkke xeem nga day jooy daaraam ya day jooy sali Saaliwu waa ñibbi na allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim